ñi ngeeg euh, Seybani Sougou sénégalais yu bëri xam ko ci euh, bind yu muy bind pour ay état de droit ñu respecte sunu loi yeeg sunu texte yi nga xam ne mooy màndargal na Sénégal république la waaye Seybani li ma lay njëkk a laaj moo di ban jàngat nga def ci préfet sous préfet yi nga xam ne dañoo xëy di rejeter lu dul ay liste yoo xam ne dañoo bokk ci opposition bi. waa jàngat bi ma ci am maa ngi lay gërëm Pape ci invitation bi jàngat bi ma ci am moom mooy préfet yi ak sous-préfet yi euh, autorité administrative lan waaye yoon lim leen jox ñu seen rôle bi ñu war a def seetlu nan ne defuñu ko moo tax booy xool pratiquement ci ay gox yu bëri liste opposition yi dañ leen a nga seetlu aussi ne ci pratiquement la totalité des gox amul quasiment listu Benno Bokk Yaakaar bu ñu rejeté loolu lenn rek lay leeral mooy préfet yi ak sous-préfet yi nekkuñu fi pour jouer rôle bi nga xam ne moom la leen euh, euh, constitution bi jagleel dañ fi nekk ngir nguuru Macky Sall loolu la ñuy doxal préfet ak sous-préfet yi. waaw mais ci loolu gis nañ ne quand magistrat yi ci cour d'appel. Euh, ñu ngi remettre dans leur droit liste yi nga xam ne dañ ko régité loolu lu mat a rafetlu la wa loolu lu l'olu a rafetlu loolu mooy effectivement ma euh, seetlu nga ko ci gox yu bëri cour d'appel effectivement ñoom dañu jël ne ni liste opposition yi ni leen euh, euh, ni leen préfet rejeté teguñu ko ci yoon donc looloo tax ñu rétablir ko loolu wane na ne en tout cas sénégalais yi doon ŋàññee justice ba léegi danañ continuer di ko ŋàññi ndax am na ay juge ak magistrat yoo xam ne seen euh, rôle euh, seen mission dafuñu ko mais am na ay magistrat yoo xam ne tamit ñoom ñu ngi doxal yoon ci ni leen ko loi jagal leen ni leen ko constitution jagal leen et loolu ñu koy rafetlu mu war na mu loolu mooy firnder rek ne préfet yi décision yi nu jëloon teguñu ko ci dara ci ar ci ci ci ci arbitraire lañ ko teg ak ci lu neex Macky Sall. waaw léegi nag coow li moo di. dafa am loo bind nga ne list Benno Bokk Yaakaar bu Dakar bu jaaree ci yoon dañ ko war a rejeter lu tax nga wax lu ñu mel. mais euh, Pape Alé dafa am loo xam ne da ko tàmm wax te mu koy dëggal xam nga danga nga tàmm wax ne euh, euh, sàcc ndënd yomb na mais fu koy tëddee moo jafe li xew ci list Benno Bokk Yaakaar bi nekk Dakar mooy. duma ma ne sax liste ñaari liste la dafa am fraude damay leral loolu pour mu leer nañ xam nga élection locale dafa am ay charte yu ko tënk charte yu ko tënk moom mooy loi électorale booy xool dafa am décret bu tudd décret 2021 mille vingt et un treize moom mooy ne mooy répartir moom mooy wax répartition nombre sièges yi am par conseil de ville xam nga Dakar 19 communes moo fa am. pour mmh. Dakar. pour Dakar ci scrutin proportionnel décret boobu dafa ne cinquante cinq conseiller ñoom ñoo fay ñoo fay nekk mais tamit code électoral bi dafa am lu lu lu mu wax dafa ne ci scrutin proportionnel bi bu nekkee cinquante cinq lan xam nga dañu tóol faaw dañ ci yokk benn muy cinquante six après nag ñi nga xam ne bu dogal amee Euh, euh, ñoom ñoom ñooy euh, ñi ñuy tuddee suppléant ñoom ñoo war a remplacer titulaire yi da ngay jël loolu nga xaaj ko ñaar nga diviser ko pour mu jox nombre de suppléants kooku code électoral article L 267 alinéa 2 moo ko wax moom moo ne da ngay jël nombre de conseil bi 55 nga yokk ci benn bu nekkee dafa tóol nga yokk ci benn muy 56 nga diviser ko. par par par ñaar mu jox la la nombre de suppléants donc nombre pour dakaar nombre conseillers yi dafa war a nekk cinquante cinq nombre suppléants yi nekk vingt huit waaw lu tax nag ñu am ñaari liste benn bokk yaakaar foofu laay ñëw xam nga am na benn liste boo xam ne yow dakaar matin publier nga ko ak yeneen sites yu bëri yoo xam ne booy seetlu di nga gis ne benn bokk yaakaar daf nañ ci cinquante cinq conseillers pour titulaires yi ci suppléants yi nga gis ci vingt deux Hmm. mu am beneen waaw mu nekk 22 xam nga donc liste boobu baaxul ndax euh, liste boobu day irrecevable c'est-à-dire que code électoral article 279 dafa ne scrutin bu nekk muy scrutin proportionnel wala majoritaire liste yi dañu war a complète moom mooy bu nekkee liste dafa am mu am suppléant wala titulaire bu ci manqué liste boobu c'est irrecevable te déglul bu baax li ma lay wax kenn mënu ko kenn mënu ko régulariser c'est-à-dire irrecevable même boo demee cour d'appel cour d'appel daf koy confirmer li may wax ni loolu dafa am solo pour ñu xam donc liste bu njëkk bi bi nga publier yeneen sites yi publier ko 22 suppléants moo fa nekk boo fin bi 22 suppléants moo fa nekk ak tampon préfet deuxième liste bi génn dafa am 55 titulaires 28 suppléants. ñaari liste yëpp am na tampon préfet xam nga loolu moom moo lay wan loolu lu leer nañ la mooy wane ne dafa am benn liste boo xam ne dañu ko rocc ci dugal beneen ndax tampon préfet moom kenn mënu ko euh, ke kenn mënu ko am tampon tam te tamit li am solo li tax ma ne fraude bi sax mooy boo seetloo list bu njëkk bi nga publier ak sa yeneen sites yi publier tampon préfet bi ci page bu njëkk bi dafa nekk à gauche. ci deuxième page entre ki nga dernier titulaire bi 55 cinquième titulaire bi ak premier suppléant bi fa la tampon bi hmm. liste boobu liste liste liste bu man liste coalition wàllu liste coalition nga liste nga tampon préfet yi même position la même position bi loolu moo lay wan ne bu 22 bi moo doon moo bu njëkk bi mais ñoom dañu génneewaat beneen list pour jéem a mottali dafa euh, mooy deuxième liste bi ñu yokk ci nag six personnes parce que liste bu njëkk bi 22 suppléants moo ci nekkoon bu bu mujj bi vingt 28 nekk ci te tampon préfet ba pare tampon préfet bi fu mu nekk ci deuxième liste bi boo ko xoolee méngoowul ak liste bu njëkk bi loolu mooy mooy prouver rek que ne fraude bu bu bu bu. graaw bu doy waar moo fa am ñaari liste benn bokk yaakaar moo am euh, euh, au niveau de coalition Dakar te kooku yoon daf ko dàq. Hmm. yoon mu munul nekk. donc loolu moo tax ma ne liste Benno Bokk Yaakaar bu dakaar baaxul c'est irrecevable te ñoom ci yoon préfet bi waru ko woon nangu. Seybani Sougou euh, maa ngi lay sant di la gërëm ci leeral yi ñu indil.